on est toujours dans l' actualité internationale ñu dalal Keina Keina maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm. maa ngi lay fay Aïcha merci beaucoup. tey yóbbu nga ma fële de ci sama waykat bi. Françoise Hardy je sais pas ma xam nga Françoise Hardy. man waykat bi laa wax. Françoise Hardy. elle est décédée je sais pas il y a deux semaines. boo boo koy nga tapé Françoise Hardy nga xool coiffure bi. maa moom tey benn lañ. yow sama waykat alors ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi. sama waykat ba pare. sama fàtte trop. kii m yóbbu Pape moom moo piqué ma fàtte merci beaucoup Aïcha donc c'est toujours un plaisir di jàkkaarloo yéen di leen nuyu yéen ñi ma bokkal plateau bi mais aussi di nuyu téléspectateurs yi à travers le monde entier Aïcha dalal ak jàmm euh, Keyna alors euh, dañuy enchaîner euh, ngeen baal ma nag mais j'ai perdu le fil fu ñu jëm avocat wala waaw jëm avocat <laughs> Amadou avocat euh, tey lan la ñuy waxtaanee. gërëmaat conducteur am bi moom moo leerul dara <laughs> donc tey Aïcha dañuy ñëwaat un peu si nga xam ne moom mooy le budget inclusif wala le budget participatif dans un contexte boo xam ne le Sénégal am na énormément de ressources naturelles te ressources naturelles yooyu noonu ak ressources minières dafay demaat ci budget bi donc il est temps que les Sénégalais mën a bokk ci li nga xam ne moom mooy l' élaboration du budget mais aussi def li nga xam ne moom mooy le euh, la société nekkoon ak ki nga ne mooy Malay Amadou Niang nekk le directeur mu vraiment rappelé waat l'intérêt te mhm. vraiment taxawaat ci li nga xam ne mooy le budget participatif ak le budget inclusif par euh, la population donc ñu déglu ko mu ñëw ci point bi après ñëwaat sur le plateau. damay am euh, damay sawar lool tontu la ci laaj googu ndax Sénégal dafa toll foo xam ne dañu am changement de paradigme bu ñu gisee at yi ñuy génn cool yi bëri woon na lool ci wàllum politique mais bu ñu gisee cool yi li ko lal yëpp wàllum transparence la mhm. euh, jubal sellal euh, rafetal yorinu réew mi euh, loolu nag dafa am solo ndax balaa ñuy ñëw ci budget bi nga xamante ne mooy li ñuy waxtaanee réew boo koy jàngat da ngay jàngat évolution euh, démocratie tolloon na foo xamante ne wàllum élection rek lañ doon waxtaanee lu jëm ci processus électoral lu jëm ci représentant des candidats lu jëm ci ban candidat moo war a bokk ak ban candidat warul bokk naam loolu am na solo mm-hmm. waaye li nga xamante moo gën a am solo ci démocratie ndax dañu naan l' argent public est au cœur de l' état de droit et la démocratie maanaam li nga xamante ne moo sas euh, moo mooy li nga xamante ne moo moo moo tax état jóg li nga xamante ne moo mooy mooy solos état mooy li nga xamante ne ñun soxla nañ ko en tant que citoyen mu mun ko doxal te loolu pour mu mun ko doxal dafa soxla ay koppar yoo xamante ne ñoo koy may mu doxal ko koppar yooyu nag li ci gën a bëri mu ngi bàyyi ko ci citoyen yi muy wàllum lempo waaye am na loo xam ne tamit dañ koy àbb te bu ëllëgee impôt lañ koy fayee waaye l'impôt loolu itam loolu l'impôt loolu itam bu ñu ko amee ba noppi dañuy xool saytu fan lañ ko war a dugal war a dugal donc voilà Malène Amadou Ndiaye le directeur de IBP donc euh, nekk ci société civile donc mi rappeler vraiment li nga xam ne mooy le budget inclusif ak le budget participatif pour la population pour plus de transparence mais aussi plus de bonne gouvernance surtout contexte bi nga xam ne moom la ñu nekk xam ne Sénégal vraiment ressources yi bëri na trop trop te dafay ñëw ci budget bi te aussi dañuy daggale les Sénégalais l'impôt y a aussi les taxes et cetera et mm. mën a def plus de participation pour la population ci élaboration mais aussi contrôle alors Amadou man li ma jaaxal mooy budget ko ci niveau local mais pas ci niveau participation des Sénégalais ou bien des locaux euh, appliqué nañ ko au niveau au niveau local cest boo demee ci collectivité locale yi donc les locaux dañuy participer ci nga xam ne moom mooy moom mooy budget bi donc loolu am na participation bi au niveau local am na mais boo demee au niveau central doo ko fa gis bu baax a baax a baax au niveau local donc yi nga gis maire yi dañuy mën a teg des cadres de concertation yoo xam ne donc les populations dañuy dugg ci cadre de concertation bokk ci élaboration bi. bokk aussi ci li nga xam ne mooy contrôle mais boo demee au niveau central budget de l'État bi c'est seulement les services de l'État ñoom ñoo koy liggéey donc du ñu am vraiment benn regard les Sénégalais du ñu ci am regard mais bu ñu jógee foofu assemblée la dem ce sont les aussi ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci nekk donc boo xoolee bu baax a baax a baax teg au niveau local mais gisaguñu benn mécanisme au niveau central boo xam dafay permettre les populations les tëralee dafa xaw compliqué pour ñi nga xamante ni bokkuñu ci. waaw nomenclature budgétaire bi moom lañ koy wax c'est-à-dire ni ñu ko bindee dafa très très très très très compliqué mais aussi dafa complexe c'est-à-dire boo nekkul donc expert ci wàllum finance publique donc mënoo comprendre exactement li nga xam ne moom mooy budget bi donc te loolu dafay limiter l'accès à l'information su ma nee budget participatif sànq c'est-à-dire dafa am benn élément bu am solo mooy l'accès à l'information donc il faudra faut que le budget soit simple mu nekk loo xam ne lu lisible donc ñu bàyyiwaat ma leen mu ñëwaat ci li nga xam ne mooy la Euh, question laaj bi nga laaj dafa am solo mooy le gros problème c'est que mhm. euh, on ne va pas souvent vers vers l'information ndax tey bu ñu dee seet ci gën a bëri Sénégal wolof la ñuy làkk l'information budgétaire d'abord elle est disponible en français mhm. bi ci topp mooy euh, budget dafa ji loo xam ne dañ ko jàppee lu technique mais nag ministère des finances ça fait des années mhm. ñu def un travail remarquable euh, d'information budgétaire de développement de budget citoyen de simplification du budget ba léegi sax ñu ngi def un travail de prévision des risques budgétaires. mais la nomenclature ba tey dafa dafa compliqué waaw. c'est-à-dire boo nekkul expert cest dire dans le domaine en matière de finances publiques wala fiscalité pour nga comprendre aussi c'est tout à fait compliqué. waaw mën na métti loolu am na lu jar a wax la mën na métti te loolu nag mooy le rôle des organismes non gouvernementaux. Mhm. de la société civile mais aussi des médias. Mhm. war nañ xool nan la ñuy ba mhm. a xalaat ci loolu. ñi nga xamante ne xam nañ tamit jéem a fexe ba xamal ñi nga xamante ne xamuñu te bëgg nañ xam. Mm-hmm. waaye wax leen ko ci anam yoo xamante ne yomb war na mën a gën a gën a yomb vraiment li nga xam ne mooy la nomenclature budgétaire parce que on parle de l'accès à l'information pour le budget participatif il a accéder moom mooy les documents budgétaires parce que boo xoolee budget bi rek la ñuy la ñuy publier mais yi am na yeneen documents yoo xam ne c'est budgétaire rapport d'exécution yooyu aussi duñ ko publier donc plus de transparence mais aussi information mën a circuler bu baax a baax sur les Sénégalais nga xam ne seen budget la ñoom lañ koy exécuter mhm. Je pense que c'est important dans la mesure où nous qui avons peut-être l'habitude de couvrir euh, les séances budgétaires là, au niveau de l'Assemblée nationale dañ lay jox le document dafay dafay dafa tu as tous les détails ci biir document bi mais soo ñëwee war a def compte rendu t'as un élément de d'une minute quarante maximum deux minutes c'est-à-dire que toutes ces informations là yow mën nga ko détenir mhm. mais doo ko mën a joxe je pense que peut-être y a y a y a y a y a matière à réfléchir si si loolu pour pour ne serait-ce mu gën a leer parce que lu bëri loo xam ne aussi nit ñi dañ ci dañ ciy weerante wala di ci am lënt bu fekkoon da doon leer. dès le départ yaakaar naa ça peut régler beaucoup de problèmes. ba barki démb Ousmane Sonko dafa dem Saint-Louis mu ne euh, mu ne gars yi dañu dañu dañu dañu lugal soixante milliards kenn xamul mu jaar donc ñu ni on a def décaissé na ko boo voilà xaalis bi kenn xamul voilà te exactement te mairie yi daanaka ñoom ñoo war a surveiller euh, am na ci part daal de toute façon en tout cas mais foofu contrôle bi non mais xanaa loolu demee bañ bañ leen di accuser comme ça contrôle bi c'est-à-dire mi ngi koy mi wax c'est-à-dire au niveau des collectivités locales am nañu li nga xam ne moom mooy budget mais aussi au niveau central am na budget donc je pense pas que ne dem na amalgame parce que li nga koy waxee budget yooyu noonu au niveau 60 milliards pour ONAS je pense pas que jugewul ci li nga xam ne moom mooy collectivité locale parce que les collectivités locales amuñu xaalis bu ñu milliards bu ñu mën a financer li nga ak euh, direction bi nga xamante ne mooy ñëw bi parce que direction bi su ñëwee. Mhm. Euh, dina liggéey ak ñi nga xamante ne ñoo ñoo di ñoo di mairie bi. Mhm. su soit su maintenance dina liggéey ak moom cest à dina am une collaboration boo xam ne moo si am parce que tey bu mel ni lu mel ni direction yi bu ñu au niveau des collectivités locales dañuy travailler avec le préfet nga am c'est l'autorité de déconcentrer mais aussi dañuy travailler ak li nga xam ne moom mooy la mairie mais ci wàllum contrôle. Mhm. les collectivités locales mënuñu contrôler li nga xam ne moom la direction qui euh, qui qui a reçu le, qui mhm. euh, ce centre d'ailleurs il a précisé pour la la construction de de stations de pompage. Mm -hmm. donc ñoom ñooy xool nuñ koy nuñ koy nuñ koy utiliser s'il y a des. Euh, enfin de l'argent utilisé ailleurs peut-être c'est à leur niveau nga ko mën a gisee parce que ñële peut-être ils vont collaborer leur faciliter le travail, euh, le travail parce que ci ñoom seen gox lañ leen fekk mais sinon je vois pas

locaux ñoo xam ne ñoom ñooy dugg di saytu un peu di xool exactement comment se déroule li nga xam ne ah, moom mooy ah. exécution budget mais au niveau central donc ce sont les codes non c'est tout à fait possible mën na ah nekk on peut prendre des personnes yoo xam ne on peut prendre des personnes yoo xam ne xam nañu bu baax a baax moom demain donc on peut vraiment trouver des personnes yoo maintenant ce sont les corps de contrôle assemblée nationale moo def c' aussi c' la cour des comptes c' aussi IGF IGE donc ñoom ñooy def contrôle mais aussi les citoyens aussi war am un droit de regard sur li nga xam ne mooy du budget on avait agité euh, la loi sur la protection des lanceurs d' alerte peut être loolu mën a nekk un bon mécanisme boo xam mhm. que baax ci leeral yi merci Amadou dañuy enchaîner rapidement ñu ngi ci virage bu mujj bi ànd ak Keyna ci li nga xamante ni moo di la rubrique astuce euh, beauté et bien-être léegi-léegi ñëw dikkat ci plateau bi